di tudd Gilbert Samb ñu gën ma xam si Baye Fallou Macky ma nekk coordonnateur des jeunes républicains conscients muy kuréel gi nga xamante ni mooy ñetteelu yoon ñuy daje di def communiqué gannaaw suñu ñeenteelu réunion si bisu tey bi euh, li waral daje bi <clears throat> mooy d'abord tey ku ne xam na ni si la dialogue bi tàmbali ñu siy ñaanal président de la république suñu borom defal ko si ay ndam ñu si ñaan aussi suñ jugee si dialogue bi dëkk bi am ak dal parce que ñun ak kujje gi nga xamante ni ñoom ñoo wuy ji tey président ñu ak ñoom ñoo bokk benn bëgg-bëgg ak benn yéene mooy Sénégal am jàmm am dal ba nga xamante caaxaanam caaxaanu boppam lan ne woon ba tey li ko dal lépp moom moo bakkanam ba suba ñuy délibéré ñuy woo yaay yi ak euh, kilifa yi ñu téye seen njaboot xam ni yooyu ñuy def di yàq alal jàmm yi amul sens sur ce ñu siy profité di marsaw ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk coalition Benno Bokk Yaakaar ku si mel ni le ministre Makhtar Ba ak euh, l'honorable député Farba Ngom ak képp koo xamante ni yàq nañ sa alal ba si suñu tant ay de Mbodj mi nga xamante ni elle est dans l'opposition ñu leen di marsaw di leen ñaan parce que président yorul njaboot guy yàq te diglewul kuy yàq ñun aussi nous sommes des jeunes euh, civilisés des jeunes yoo xamante ni dañoo bëgg Sénégal du ñu cautionné benn yoon. ñu gis ni aussi ndaw ñooñu ay ndaw lañ yoo xamante ni gendarmerie am na ñu mu jàpp domicile wuñu sax Dakar. domicile wuñu aussi Thiès ay nit la yoo xamante ni Sonko mi ngi leen di recruter Casamance ak yeneen nit yoo xamante ni mi ngi leen jëlee ginnaaw euh, Guinée Bissau ba si frais de transfert yi mu defak yooyu yëpp loolu nag dañuy seen interpellé ñi nga xamante ni ñoom ñoo suñu wàllu justice mu def liggéeyam parce que loolu foog naa affaire criminelle la kon ñooñ nañ leen àtte àtte criminelle il faut que Sénégal sévère si loolu ndaw ñooñ ñu jàpp ndaw ñiy def ak ñi leen jël ñu koy def ak Sonko mi leen fi indi il est temps que état bañ a faible seen côté il est temps que aussi justice wane si rigueur bu mat sëkk def li mu war a def pour que dëkk bi mën a dellu si jàmm. beneen point ndaje bi mooy par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu tënk si ndaje bi mu doon li sosoon suñu kuréel gi muy ay ndaw lañu ak i femmes yoo xamante ni binnu yi weesu inscription sur les listes ndaw yi nekk sama ginnaaw. ñoom ñoo dox ba inscrire lu mat lu ëpp junni si ay primo votant junni si ay primo votant yoo xamante ni dañuy yeewoo biir département bu Thiès ñenn ñi ñi commune Thiès Nord ñii commune Thiès Est ñii commune Thiès Ouest ñii si des nekk si département bi ndaw ñooñu nag liggéeyal lool seen seen parti dañoo gis ni depuis 2012 président bi mu fi nekkee ba léegi ndaw ñi amuñu si dara amuñu si benn avancement ñi nga xamante ni dañoo tolloon si un fa ñuy xëyee un boobu rek lañ am amuñu fa sax considération am ñoo xamante ni ba léegi amuñu si benn xëy contra sax stage mësuñu ko se am te si parti bi lañ nekk accompagner parti bi bañ nekk o pouvoir ñu ñu ako continuer di accompagner boole ak seen i jàng ba ba parti bi am première mandat wu ans ñu war a séntu beneen mandat wu cinq ans mille vingt quatre deux mille vingt neuf ñu am yéene ànd seeg président mais ñu gis doxalin boo xamante ni loolu day commencé tas suñu yaakaar ay kilifa yi président dénk dañoo desee delloo naar bi xoromam parce que nit su la dénkee da war a gert su njabootam mais ñooñu gert suñu njabootam moo tax si fan yee wees bi ñu dajali ko ñu tënk ni bépp activité boo xamante ni activité phare la parti bi organisé ko duñ si dem dañuy banque suñu loxo parce que bi ñu waxtaanee gis nañ ni kenn si ñun mënut a bàyyi parti bi kenn si ñun mënut a bàyyi président Macky mais dinañ toog si biir parti bi xeex li ñuy xeex di boycotté bépp activité le 3 bi ñu jëm si activité yoo xamante ni bañ ko jàppee le 26 génnoon nañ ne dañ koy boycotté dañuy renouveler waat loolu décision boobu ñu jëloon que Thiès ndaw ñi dañuy boycotté parti bi bépp ndaw nag bu génn ne day dem du ay ndawu président parce que am nañ responsable yoo xamante ni seen ñàkk dimbali njaboot président yegg na suñu dem fay ay xale pour def loo leen pour wax loo leen ngir wane ni ndawu Thiès yi dañuy dem mais ndawu Thiès yi nga xamante ni ñoo yàgg a président ndaw Thiès yi nga président daf leen di gis di jaar seen tur ndaw Thiès yi nga xamante ni au niveau de Dakar xam nañ leen ndawu Thiès yooyu dañoo bank seen loxo parce que amuñu dara ci parti bi moom lañ doon day dayloo tey jii pour fësal ni joxewaat suñu accord ne mobilisation boobu biñ tënkee que ni dañ ñu defal euh, li ñu bëgg parce que ñu ngi gërëm le président Abdoulaye Dièye bi mu ñu recevoir dig nañu mais defagul mais si woyofam recevoir nañu déglu nañu te loolu am na solo yeneen ki am na yeneen kilifa yoo xamante ni am nañ yéene bi defaguñ ko am na yeneen kilifa yoo xamante ni suñu sañoon beneen kilifa duñu du ñu recevoir parce que bi ñu gannaaw bi ñu waxtaanee rek tënk su parti bi daan am ndaje ñun ndaw ñooñu daan si ay kaar dinañ daan génn lu tolloog téeméer wala lu ëpp téeméer si ay kaar ñoo daan jugee si loxo ndaw ñooñu di dem Dakar tey nag téeméeri kaar yooyu ak lu topp du dem si manifestation Dakar bi nga xamante ni nos camarades ñi ngi koy organiser rien que parce que jeunes yi dañoo am benn manque de considération totale fii si Thiès pour pour pour diir vrai <clears throat> am na ay kilifa yoo xamante ni jege nañ njiitu réew mi ñu ngi communiquer ak ñun ñu ngi ñuy wax aussi pour ñu dal te dal googu moo nekk si ñun moo tax ñu muñ 2012 ba 2023 waaw muñ nag li suñu mbokk yi naan euh, banq tànk day banq wala mu euh, mu tàllu waaw waw moom du weesu kong te ñii ku xool seen kanam xam ne muñ nañu tey yéen nekk si réunion bi da ngay gis ay jigéen ñoo xamante ni dañoo indaale seen i beñe di jaay indi seen i café di jaay dégg nga léegi ki nekk sama ginnaaw moom madd la indi am ñeneen ñoo xamante ni dañoo demoon xarimat am yenn góor yoo xamante ni dañuy dem di arbitrer pour ñu leen fay mais contrat yi nga xamante ni on a des des des des camarades des non soi-disant camarades yi nekk si biir parti bi bërki demoo Ndiaye gis ngeen fi ay terrain yoo xamante dañ kaa may ay opposants ki ko def si ñun la bokk président moo ko jox jër dem ak bërki dem gis ngeen fi ay ministre tóob yoo xamante ni ñu ngi génn di joxe ay information si opposition bi tey jii ñu am ay ndaw ñoo xamante ni seen lépp président lañ ko doxal ñu am ay responsables yoo xamante ni il préfère recruter dans l'opposition que recruter ci biir parti bi parce que lan clientèle politique même ici à Thiès y a des responsables yoo xamante ni ils sont pris des gens de l'opposition utal leen salaire di leen fay rien que pour ñu bañ leen di attaquer si presse wala ñu bañ leen di wax bàyyi njaboot président gi nga xamante ni ñoom ñoo faloon président ñoom ñoom àndoon ak président ñun nag loolu lañ ne mooy jeex. non euh, parti bi jaxasoowul xam nga ay ni dañuy yooxu pour seen kilifa ñu nag ñu toog. ñun ñëpp ñoo bokk benn kilifa mooy président Macky jàmmub Sénégal mooy falaat président Macky 2024 loolu yàggaguñ si 2024 yàggaguñ si te su jaree ñu jël ab décision ñun kuréel gi ñoo koy waxtaanee parce que kuréel gi nee naa la léegi dafa nekk si kuréel gi nga xam si département bu Thiès fukki dëkk ak juróom sekk ko mu doon ay ndaw ñoo xamante ni kenn ku si nekk sa biir dëkk am mel nga fa noo xamante ni si li nga am yaa ngi yittewoo yittey askan wi comme ni ko président bëggee si dëkk ba kañ fa jox ndombal tànk ndaw bi nekk fii moo ëpp doole kooku ndaw yooyu ñoo dajaloo fañ jëm nag 2024 sans dépense yi président de la république mi nga xamante ne moom moo ñu yilifee parce que ñu ngi sàkku toog ak moom si nu mu gën a gaawee pour mu résoudre problème yi si nu mu gën a gaawee ay xëy la nit ñi bëgg ay financement la nit ñi bëgg leneen ak leneen la nit ñi bëgg waaw prévoir nañu aussi def benn marche euh, jàpp nañ ko lundi Thiès à Dakar pour pour dem gisi notre frère secrétaire général président Macky Sall. Mm. Baye Fall moom kër sëriñam mooy ngay wax sëriñ bi dëgg waaw te man ku ma xam Thierno Alassane bi may tuddee Baye Fallu président Macky boobu c'était en 2015 boobu ba léegi ñu ngi ma koy woowee partout dans le Sénégal mais sooy alerter di alerter il est temps que nga nga dimbali président parce que ñun ñooy Baye Fall yi keroog gis ngeen bi ñuy joxe ndigal ndigal la Baye Fall dañoo mel ni ku yàq te yàquñu dañoo defar. kon Baye Fall bi fi mu positionné yàqul day defar defar bi nag mooy dajale ndaw ñii nga xamante ni kóolute lañ am si man def ma seen coordonnateur dajale leen bokk ak ñoom métit bi bokk ak ñoom naqar bi ànd ak ñoom ba président de la république moom miy aji saafara gi mu saafara seeni i tawat suñu dikkee mën a gagné département bu Thiès à 100 pour cent. voilà bonsoir euh, je m'appelle Bassirou Seck je suis le responsable des jeunes de R100 de la commune de Thiès. aussi chargé de la communication de la jeune républicaine conscient. Nous voilà encore pour la troisième fois devant l'opinion pour faire passer un message à l'endroit du chef de l'État, par ailleurs secrétaire général de l'Alliance pour la République. Nous appelons la jeunesse républicaine à s'unir autour de l'essentiel, à savoir la lutte contre la manipulation d'une opposition démagogue et radicale. Avec le président Macky Nous croyons que cette génération a le pouvoir de bâtir un monde meilleur où chacun est traité avec dignité et respect. Nous sommes convaincus que la jeunesse est capable de créer un changement réel et durable. Nous lançons un cri du cœur pour soutenir la jeunesse qui mène ce combat crucial et nous sommes plus déterminés que jamais à poursuivre la lutte ensemble pour une jeunesse républicaine nuit juste et euh, pour une alliance de la République qui garantit l'égalité des chances pour tous. On ne pour autant la dialogue nationale soit un succès pour mener notre chère nation vers l'émergence dans la paix et la concorde nationale. Nous aussi le président Ablaye le DG de l'AIDB, qui nous a accordé une audience le samedi passé, on a exposé tout nos problème pour le DG Abladjei, pour qu'il puisse régler notre problème de la jeunesse consciente. Il nous a, il nous a tous les efforts nécessaires pour trouver des solutions par rapport à notre revendication. Merci beaucoup.